mbokk yi seen xarit pëndal ñëwaat na ma fas yéene pëndal ba mu pënd yoo sama micro topp si territoire yi di xool jéeg yi xamante ni mooy jéeg ju jonge ji ak jéeg ju jongewul ji dugg si biir néeg yi si rukk-rukk yeeg rukkaat yi xool ni ñuy wekki fer yi ndax baax na xool ni ñuy taalee cuuraay ndax baax na di laajte tamit lan moo tax seen jëkkër yi am jabar di doxaan yi jëkkër yi moom dañuy war di doxaan di takk jabar di teg léegi nag yéen boo leen jonge woon wala boo leen mënoon seen boor wala ngeen mën seen feem yaakaar naa seen jëkkër yi duñ loolu foofu moom d'accorduma ci ak yéen hmm. ndax góor ñi moom wax dëgg yàlla hmm. kenn mënu leen motale hmm. ndax ndax ñoom xeebuñu dara dara feesu seen bët dara feesu seen bët buñu buñu luñ leen defar rek ñoom defit la ci ñoom keneen bu ñëwee bu defaatee day mel ni yow musoo def dara waaw. ne xaritu jëkkëram ñu leen doon laaj nan ngeen def ba moom seen jëkkër ba teye seen jëkkër si seen biir kër ba bokkoo leen ko kenn ndax comme yi dañoo sàggan ba ba ñaareel yi jël seen jëkkër ñuy xool nan lañ ko dundee. xam nga man moom maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di fay ñëpp xam nga aawo yi moom man moom bala ma jox dara sama aawo dafa baax te bëgguma ñu koy dégg naa damay sànni xeer sama aawo ndax sama aawo dafa baax. waaye nag ñun ñaareel moom dañoo soxor loolu yàlla dogal na ko ci suñ deret la ne ñun ñooy fekk góor guy bëgg a dee ñu dekkal ko loolu yàllaa ko dogal looloo leen tax di tiit ndax ku sa paan fees doo rootaani ku rooti sa feesul rek waaye man bu ma dégg sa biir wax yow da nga moom sa jëkkër ta te yaakaar naa di ñettali ñoo ngi ñëw da dal seen kaw comme ni ngeen jëlee seen jë aawa yi nangoo seen aawa yi seen jëkkër seen loxo noonu la ñetteel yi ñëwee dal seen kaw waaw man moom sama jëkkër moom bu ko neexee na takk ñeent ba juróom ba fukk man raw ma saala yaay ndeer néeg bi moom maa ko moom te li ma fa bëgg laa fay def man ragaluma kenn moom daal na ko man rek waaye li des ci man moom na takk saak man tiitoo ragal kon bu ma la déggee daal yow tiitoo ragaloo engagé nga daal ah d'accord léegi lan nga xam ci aaw yi waaw yi moom déggoo li ma ndax man sama aaw dafa baax garmi la saa yu ma demee këram. yow bu ma la déggee yow ni nga waxee nii da ragal sa aawa de. ah ragal nga sa aawa ragal nga ko ragal nga ko ragal nga ko da nga ragal sa aawa parce que ragal sa aawa yaakaar naa ne moo tax nga waxee ni nga waxee. maa lay nuyu di la di la jox sa wàccuwaay yéen célibataire la moo tax ngeen nangu jëkkëru jàmbur yi. Ah, du question leen de par exemple jëkkëru jàmbur yi ñoom ñooy wër célibataire tamit. ñoom ñooy wër célibataire mm. ñoom bu fekkee ñoom dañoo ñëw di leen seet si te fekk ñoom ñu am jabar da ngeen leen wan a wax yem leen seen jabar pourquoi yéen ngeen di accepté di nangu di génn ak ñoom ba sëy di ci am da ngay gis koo xamante ne baax na da lay gënal après ma proposé le mariage léegi yéen ñaar ngeen mari yàlla moo koy tudd nag am na ñoo xamante ne moom dañuy génn passant nii rek lañ ko jàppee man li ma jaaxal mooy ñoom bu ñu jógee seen aawa yi ba ñëw seeti benn xale bu jigéen boo xamante ni célibataire la bëgg doon ñaareel ñu ñuy def ba kidnappé jëkkëru jàmbur ba takk war saa mën a am man daal fi ñuy jaar daal ruq yeex ruqaat yeex yooyu man daal bëggoon naa koo xam mais pinsa yi tamit célibataire bi day gën a jógee kii aawa bi loolu la rek ah dama bëggoon xam seen xeetu jonge fan ngeen ko teg loolu laa bëggoon a xam ah parce que yi ah dañuy taal cuuraay di takk fel di def nemm nemmel yi di def vivre ñoom vivre ñoom kaseng kaseng yëpp ci biir yaakaar naa ne jonge am na foofu euh, pour quoi ñoom mënuñu doylu yam seen aawa ba tax ñoom ñuy recherche beneen jigéen ba ba kooku jommal leen ba tax sëy am ci loolu man daal fi ngeen di jaar ak seen i clé ak seen yëf yi soxor daal man bëggoon naa koo xam. mais pince tamit xale bu jigéen bi day wan ko góor ki loo xamante ne moom su ko gis si xam nga affaire bi du loolu dong affaire bi lépp la góor moom boo ko mimalee sa bopp rek boobu mooy première fin bi ndax boo ko mimalee sa bopp en même temps lu bari di nga ko am ci moom ndax am na loo xamante ne comportement boo xam ne wala euh, nekk boo xamante ne da ngeen ko nekk yéen ñaar dina fàtte kii wala xelam du nekk ci ke tout le temps bu toogee xelam ci kii lay nekk. waaye yéen yéen ñi xamante ni yéen yéen yi yéen da ngeen soxor clé na am nañ célibataire yoo xamante ni da leen di jaral sax ñu dem ci maara bi xam nga liggéey xale bu góor bi pour mu takk leen pour renkar yi rek nangu jëkkëru jàmbur te yaakaar naa ni yéen lu nekk da leen koo jaral daal ma xool leen nan ngeen ko dundee ak lu mu leen jaral ba tax ngeen def loolu yëpp. ah loolu moom ci jigéen ñi la rek ci jigéen de ma personnel man moom du ma def loolu. soo ñëwee sax di ma proposé dama naan la bu dee marié nga yemal sa jabar mais boo mooy poussé di poussé ndax góor moom painsaay moom moo ñëw naan la du ma yem ci kenn boo nee yem nga ci kenn moom moo lay poussé ba nga génn ak yow ba mu génn ak moom léegi soo génnee ak moom moo lay proposé mariage da lay xool man ni ma ko déggee daal mooy xale yu góor yi moom dañu ñëw naan sama jëkk sama sama aawa defaluma lii aw ma fa jàmm aw ma fa salaam xam nga ba tax yéen ngeen dugg si dugg si loo xamante nii tamit kumpa la ci yéen man daal noon laa ko jàngate daal xaw ma nag yow noo ko jàngate mais jàppal ne nag xale bu góor bu ñëw ci yow ne la sama aawa lii sama aawa laa bu ëllëgee bu la takkee tamit noonu lay def sama ñaareel lii sama ñaareel laa ah man moom aawa laa bëgg a doon. Ah, mhm. kon aawa bi nga bëgg a doon yàlla na la si yàlla jàppale te nga mën a sëy te man a muñ mën a maslaa mën a toppatoo sa jëkkër.